mbokk yi xarit yi ñuy seetaan à travers Dakar Buzz TV dalati leen ak jàmm laa leen di wax saa su ne mbégte la may jural jàkkaarloo ak yéen tey nag ki ma seet si di ndaanaan Coully Fadri defe naa kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal def na fi euh, jàlloore bu nekk mais balaa ñu gën a xuus rek dama leen di bàyyi léegi léegi mu nuyoo bu ko defee ngeen xam ndaanaan bi ma seet si tey maman Soda nuyu naa la. fay naa Rose sama doom ji maa ngi lay nuyu bu baax. Mhm. di nuyu Dakar Buzz bu baax baax a mm-hmm. baax. di kontaan ci ñoom nag seen liggéey rafet na macha allah mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. ki ñu seet si tey ni ngeen ko gisee du kenn ku dul maman Soda soo mu nekk plaisir pour ñun ñëw tey euh, mu dalal ñu ah amal ak ñun waxtaan malgré emploi du temps bu chargé bi et euh, dañuy daal di rek xuus si questionnaire bi ñu bëggoon laaj maman sénégalais yi moon la lool rawatina sa fan si nga daal di ñëw ci yëngal jamono ànd ci ki nga xamante ni mooy Mbène Euh, li tax yëngal jamono. <laughs> jërëjëf Rose xam nga ndeysaan waxin la rek acca leen ñu yëngal jamono mm-hmm. ku sa jamono yëngu nga yëngatu jug leen ñu yëngal jamono waaye boobu maa ngay yedde mm-hmm. boo demee ba ci biir maa ngi naan ca yëngalin wa mm-hmm. nanu tee ñu yaru ndax tubaarkàlla ab nit bu nee cib réew day fexe ba bokk ca woy wa ndax woy wa du te boo yëngalee ñu xam ne kin ne ci jamono mi ngi yëngal boo nekkee ci jamono da nga yëngal maa fi yaa ngi ni di yëngal di yëngal Dakar bës. <laughs> macha allah defe naa am na solo lool euh, su ma juumul 2001 nga juge woon Sénégal daal di voyager ma buggoon xam ba ngay doog a egg France. waa France dañ fa egg tubaarkàlla xam nga maa fi meilleure expérience c'est de voyager. Mm-hmm. c'est une bonne leçon dafa baax ci nit. kooku kiy voyager ak kiy voyager wul du nu bokk benn yoon. Mm-hmm. xam-xam boo fa amul alal. di nga fa jàngee loo xam ne moo gën alal muy tukki ñu jaar ci yu metti euh, fen tëbu rek neex boobu miin na ndakaaru yàgg na ndakaaru macha allah waaye am na à doon moment donné dem sàkku ji xam-xam utuwaat beneen expérience euh, tukki nag yàlla nattum sunu borom la yàlla koy dogal ñu tukki def fa ab diir waaye bi ñibbisi jotee yàlla dimbali nañu ci kàttanam ak ci yërmandeem bu nu ñibbisiwaat waaye daal amul dara lu ma cee réccu ndax am na yu bari yu ma ca jàng mhm. waaw tey ban anecdote nga ñu mën a nettali ci euh, ba ngay doog a egg France rek ndax euh, ñu bëri des fois bu ñuy doog a egg dinañ am jafe-jafe déjà pour intégrer wu waaye it euh, maman Soda première fois nga dugg ci métro nettali ma loolu waa dëgg man kii ba tapi tapi kii ba kii ba laa juumee escalier escalier ya ndeysaan dama ci yéeg rek daal di war baabe war baabe rek war baabe sama doom ji ñu may jàpp may war baabe di yuuxu nit ñi di reetaan xam nga booy booy soog a ñëw ak loo miinul ndeysaan bàjjo loolu loolu loolu sama maa def na ko ak yu bari waaw yàgg naa burle métro nday mari njaay gawloo dama ko burle loo ñu jàpp ko te maa ko burle loo man ñu teg ma ne de côté que burle police ju laaj mu nan ko monsieur pardon ak yàlla nga jàpp sama jaat see kii la tant que man miin naa yooyu min naa ay burle ak ay yëf sa yaay dafa yëfe min na yooyu ak yu bari bari bari bari macha allah macha allah Pape Cheikh Diallo yaa ko dégg sa mag tey mm-hmm. euh, def na def naa confidence ah da doon lee métro <laughs> dañ bëgg sax nga ñëw euh, sa digganteek moom ndax defe naa euh, Sénégal Ndiaye umpalewuñu seen diggante mm-hmm. ndeysaan moom it mu jox la cër lool ndax mm-hmm. bu ñu seetloo Baye Cheikh lépp lu muy nas rek Euh, ñi cee jiitu en tout cas maman Sodou Bousso bokk na ci euh, complicité boobu seen diggante. waaw heureusement fii Pape Cheikh sama sama rakk la. bu mhm. ma fonk. adduna nag amoo lu dul ku la bëgg ku la bëgg da koy bëgg. Mhm. nit bu la bëgg. Mhm. bëgg ko. te moom daf ma bëgg am fu ma teg leer na Sénégalais yëpp def ma ku mu bokkal ndey def ma magam def ma kilifam ma ma def ko sama rakk di ko gërëm bu baax. ko gën nag ci réew mi yaa ngi koy wax léegi na ma maman xamoon ni Pape Cheikh Bakhy dafa laa biir xol ba dafa rafet te ji ñi ñi xamoon bu siggee du la sa xol ñu ngi ko gisee ci télé bi bu toog ak yow di nga am da nga da nga da nga sax da il n'est pas comme ça nit bu bari kersa waaye ñu koy ñaanal moom itam yàlla defal ko jàmm waaye kooku ay waxam man su ma ko waxee sama nit la bu ma ko waxul sama nit la Sénégal xam nañ ko macha allah defe naa Sénégal yëpp xam nañu seen diggante. Euh, ba tey jamono bi am benn vidéo boo xamante ni rek mu ngi def buzz à travers ci toile bi rawatina fi nga xamante ni mooy TikTok. mais au delà de euh, côté euh, bi ci bi ci neex mooy fecc yu neex yi ngi ci fecc. message bi nga xamante ni Papa Thione mu ngi koy véhiculer. ndax mu ngi la naan góor baax na. jigéen baax na. su la yàlla fayee sa xol ngëneel rek ngay am. nga daal di jooy. lan moo tax nga jooy. waaw boobu émotion la ma fi xam nga ku rafet xol bu la tuddee sa xol bu rafet day am sentiment bu la yàlla fayee sa xol moom it di ko di ko bu baax sekk ñoom amalun ma amalun ma bor coon way na ma Mapenda way na ma waali sama dooma askan woowu macha allah defe naa mu doon émission boo xam ne xam ma dama fekkoon ma gëj ndakaaru nag mu fekk ma foofu de wax ma loolu ma wax bëgg ma tagg ma wax ma nag wax bu am sentiment waaye dégg nga way wax man tam sérieuse ma ndax bi bi ma way ba ma jooy rek ba ma pare il est ma dëggal li ma jooy waaye dama ñàlle <laughs> nee na moom tamit sérieuse <laughs> il est que ma taxaw eggali way waaye dama tëb fecc mhm. fecc ba ma fecc nag moo improvisé ñu ñi ndeysaan waaye boobu xam nga as góor ay yu bari bu yàggee danga ngay rusloo ki la way dëgg la xam nga te jooy naa sëngeem daal di jooy mu tàpp tàpp ma na bal maax mhm. bugguma woon génne rongoñ waaw macha allah xam nga loolu way ba ma bëri sentiment te man je suis sentimental mhm. waaw Rose tey euh, suñu culture buñ nee caat rek dañ naan caat dañ leen yar ak seen sago mhm. ngay caat waaye caat dañu naan day xaritu ay way juram moo xam euh, bu jigéen ak bu góor euh, say waajur jaraloon la tey nga jóge Sénégal dem bitim réew daani doole ngir teral leen ngir taxawu leen comme ni ko doom bu nekk di ñaanee jamono bi suñu borom weddi ñoom ñaar ñëpp uute. jamono bi ñuy ñaan suuf oyof seen kaw suñu borom teeru leen àjjanay firdawsi maman Soda complicité bi nga amoon ak say parent déjà ñu buggoon xam ba ngay doog dellu si Sénégal jour boobu noo ko dundee ak say way jur waa man nag doomi yaay laa moo tax ngay wax ak euh, coon way bi ma way di ñaax bu baax ñun xale yi ñi fi dese seen way jur nañ góor góorgóorlu bu baax Rose lépp mi ci way jur match de football ñaana way jur match de football la ki passe bal bi kenn du ko tingoom ki dugal bii la ne tingoom ki passe amoon na yéene waaye eggaliwu ko mu doon loo xam ne yàlla may na ma chance mu dund ceeg ñoom ba day ni ma day ñuy doog a dem. am na ñu juddu. te xamuñu seen waajur. am na ñu juddu fekkewul dara ci seen waajur. Mm-hmm. am na ñu juddu seen waajur lekkul ci seen wërsëg. Mm-hmm. kon bu nu yàlla defalee jàppale nu ba tubaarkàlla ñu dund ak ñoom ab diir am lu nu yéene as tuut am lu ndaw loo xam ne fàttali ko den ko ñoom ci ñun. Mm-hmm. metti na nag waaye dañuy góorgóorlu ndox loo moo neex sunu borom. yàlla na suuf oyof ci seen kaw. ku na xamoon na sama diggante ak sama yaay man may caat déggoo ma na maay caat di doomi caat sama yaay moom caat la waaye man la caatloo sama papa mooy alaaji Cheikh Mbagne Seck moo ko Abdou Guité seen ñaari papa yaa bokk ndey ak baay Abdou sama papa la waaw donc wuy jur moom boo ko teelee ñàkk rek dara xam nga tubaab dafa na chaque lettre à couvert bu amul ci lettre day réer du am kilifa ndax loolu la wajur mel. kilifa noonu la mel. boo xasee ba ñàkk ko rek tu es vide waaye li am solo rek mooy yàlla moo lay jàppale nga dëgëral dëgëral la. maa la wax li moo tax loolu moo neex suñu borom tey ci këram sax ma fekk. waaw macha allah <laughs> tey ci këram laa la fekk ni ma ko waxee woon rek si njotteelu question bi euh, suñu société faral di wax euh, caat dañ koy yar ak sagom mais gisuñu loolu ak yow euh, sa digganteeg sa jur bu jigéen ma bëggoon nga ñëwaat ci tuuti rek. yan jikko moo la gënoon marqué euh, ci moom. waaw man daf maa yar. Mhm. su ma saan woyaani. Mhm. day bàyyi ba ma solo ba poudre pour dem tudd daf na ma simmeeku dem marché ba pare ñëw togg. bu ma toggee ba pare ma ak samay frère ku mel ni Alsane Mbaye mhm. suma frère ñoo defandoo lépp. ak ndaanaan yëpp sama kër lañ daan ñëw. ndeysaan tubéeru ñoom ñëpp damay dem togg añ ba pare ñu añ ba pare suñu pare dem mbappati woyaani su ma guddee bu ma ñëwee tubarkalla day yéex. bu ma tijjilee tubarkal la dafay dal sama ko ndeysaan waaw moo tax yar dafa am solo. Mhm. waaw lu metti dafa am solo éducation dafa am solo. Mhm. moo tax xale yi nañu nangu bu baax. Mhm. metti na waaye waajur lu mu la tere moo gën lu mu la terewul. waaw ñu ñu ñu daal di nag jaamu ko. bañ nañ ci waar tuuti rek. loo xam ne jarul sax wax. waaye boo génnee ñu xam ki ñu yar ak ki ñu yar. dëgg la waaw. Euh, macha allah euh, tey boo xoolee euh, xale jigéen yi ci réseaux sociaux yi ga gaadu looy suivre trop sax mais jamono tey bi rek sama génération bi ni ñuy doxalee ni ñu amee fit ni ñu sañee coow yi ñuy andi tout le temps scandale yi ban jàngat nga ciy am. ah xanaa di xam nga yaa ngi may wax sax ne maman Soda yaa nga tëg ci yooyu. Mhm. man la maa fi ma xew. Mhm. xaw ma sax yooyu. Mhm. waaye day doomu nit ku baax. war naa góorlu ci boppam. maay doomu diw nag fexe ba doon diw ko gën. maa ngi naan ci woy wi dënd ak diwlin taxuta nin lu yàgg ci diwlin waaye dënd ak diwlin taxuta nin et te jër naa moytu maa ngi koy wax kerook image jër naa moytu roy itam ñi fi nekkoon roy leen tuuti rek jël ci ñoom ñaari jikko sax am na solo ndax nit ku baax day am jomb-jomb dafa am solo yooyu yëpp jekkul xaw ma ñu koy def waaye ku ko mën ti defit jekkul waaw ñun ñëpp ñoo bokk génération ci ci lu may wax ci man mi laa ko njëkkee waaw ñu góorgóorlu te xam na ne dinañ ami doom ami njaboot te image yi day des ñu góorgóorlu bu baax xam fi ñu teg sunu tànk ak li ñuy def ndax àdduna amul benn solo su baree jeex bu newee jeex waaye na rafet mu rafet moo tax bu ëllëgee yàlla na yéex ñu mën laa ko waaye lu ñu teg rek lu rafet lay doom kon ñun xale yi nu góorgóorlu bu baax a baax defe naa am na solo lool ñu nekk ci société boo xamante ni dañuy faral di dénigrer mm-hmm. jigéen yi nga xamante ni dañuy sëy amuñu fa tout tànk wala jigéen yi nga xamante ni mm-hmm. dañuy toll ci sëy sax euh, sëyuñu euh, tey ban gis-gis nga am euh, ci kàddu yooyu des fois ñu yëkkati di ko teg jigéen yi ah maa fii dafa am yoo xam ne nag mbiru suñu borom la kur sañoon bu ne mm-hmm. jigéen luy sagam mooy am jëkkër toog sëy am njaboot góor waxi noppi ku sañoon dem màkk ku sañoon am kër ku sañoon am oto tere sa yaay tere sa ku sañoon tubarkala am jëkkër ju baax mhm. waaye yooyu yàlla yàlla yàlla moo koy jox jàmm loolu yëfu sunu borom la tey ku sañoon ku xamoon bu ne mhm. fan ngay nekk ki lay takk fu mu ne mhm. ki mooy sa jëkkër dangay ngay dem tubaarkala daal di temp nank ngeen daje waaye yàlla da lay defal boo xam ne mu laa jox lépp on peut pas avoir tout on peut pas avoir tout mun am lépp ku amandoo lépp sa jóge fi foog yàlla desal li am lu mu xañ sooda bu sa tuuti am lu mu jox kee am lu mu la ñamal am lu mu ñamal roos tey bari na say morom yu bari yoo xam ne bëgg leen gàddu micro Dakar Buzz bi waaye loolu macha allah yow la ko yàlla ak yeneen ak yeneen yeneen moo tax na yoo xam ne nag jarut a condamné kenn ndax sunu borom ay yëfam la te mooy dogal on ne peut tout dans la vie waaw mënuloo am lépp waaye ñuy sabablu nag jaam de sabablu lu ci nit bëgg rek yàlla na ko yàlla defal waaye li gën yàlla na ko yàlla def li gënul yàlla bu mu am kon dañuy ñaan yàlla li gën rek li gën Rose yàlla na ko yàlla defal sama doom ji yàlla may la jëkkër yàlla may ma jëkkër may ko keneen may ko keneen waaw xam nga tubaarkàlla ku dul may sa bopp loo am jëlal dëgg la am na solo lool ku dul may sa bopp. lu am jëlal am jëlal. Mm. waaye it doomu aadama bi lépp loo yootu rek yàlla na doon sa wërsëg. Mm, mm. yàlla na la jik euh, ba tey maman Soda tey bu ñu xoolee dañ naan xaritu ñëpp nga macha allah ndaanaan yëpp say nit lañu say xarit lañu ndax nekk nga nit boo xamante ni da ngay dox ci wax lu baax da ngay dox ci defar da ngay dox tout le temps ci rafetal mais sa diggante Djiby Dramé marqué ma lool. ndax nuit des basin euh, bi passé ndax bu ren bi jotul am ndax Covid 19 bi mais bu daaw bi nga bokk si ñi nga xamante ni ñoo def euh, entrée bi. Mm-hmm. nga àndeex ko ki nga xamante ni mooy Babani Koné l'international. Mm-hmm. sa diggante bambara yi. <laughs> <laughs> waaw kooku nag sama moom itam li boole moom it dafa fort. Euh, moo ma jàppoon yóbbu ma ci baayam. Mm-hmm. na papa ki mooy sama jigéen. papaam na ko jàppantaleen démb. Mm-hmm. jibi di nit ku baax koo xam ne moom itam ma kook mm-hmm. sama frère li ne fii ci kër gi. Mm-hmm. muy sama nit. lu mu am bu wan ma lu ma am wan ko. ñu bokk lépp. di sama càmmiñ di sama xarit. yóbbu ma nag ci askanu bambara. yaa ngi koy tutu léegi baaba di ko ne sama ndey ji kere ba ma demee ko dootuma ko dolli <laughs> kenn musul gis lii allah ko ne sankaranka mu defanteeg man lu baax. waa jibi di sama frère di sama xarit. chéri maman bëgg ma bëgg ma lool lool lool Dramé. waaw te adduna noonu la yow tam ay collègue la ñu. waaw ñun ay collègue la ñu waaw yéen a bokk métier. <laughs> lépp dafa war a rafet. nous sommes des collègues. amul sabar bi kii abal la. da nga war a jouer amoo guitare. wóol kii abal. ana clavis bi newu fi. wóol kii mu abal. ay collègues la ñu. comme des bureaucrates ay collègues la ñoo bokk lépp. macha allah <laughs> jamono boo xamante ne dañuy toog ji dégg ni xaritoo amatul mais man dama koy weddi li tax ma koy weddi mooy su ma xoolee diggante bu mel ni diggante euh, maam Vieux Sagne Faye ak ki nga xamante ni mooy euh, maam Dundiaye Coumba Rose damay gëm ni xaritoo am na peut-être que ñenn ñi ils ont pas fait juste le bon choix seen diggante ñoom ñaar ma bëggoon nga ñëw ci ndax euh, kenn ki sa maam la keneen ki tamit sa papa rek mm-hmm. waaw waa Rose kooku sama maam la wax naa ko sànq maali maali ngoone mi ci yoof ba géwal ndakaaru naaru yaay joor ba géwal ndakaaru ñetti jimbe al ba géwal ndakaaru mu Sawa Jaañ ba géwal ndakaaru keneen ki nga tudd Doudou Ndiaye Coumba Rose mu Iba Ndiaye Codou Yoro sama baay bi moom mu njëkk dugal UNESCO en 2006 ca France ca UNESCO mhm. tubaab yi toog ñëpp toog mhm. xanaa xamoon duñ jaay Rose li mu def. lu mu def. lii Senghor def ci académicien académicien français moom la du jaay Rose def ci académie sabar Senghor dafa fekk tubaab yi jël seen dictionnaire ba pare mu tijji ko. Mhm. def ci quincaillerie. Mhm. papeterie. Mhm. laverie. pâtisserie. dibiterie dibiterie. ouvrerie. tëri tëri tëri joo ko gis Senghor ko def. mu ne tërë tërërëri. tërërëri ji teri tëri tëri boo gis Senghor ko def ci dictionnaire francais dun jaay Kumba na dafa jël fekk sabar yëpp mu am mu créé sabara boppam Grosse Mbabas dun jaay Kumba Rose moo ko créé ci biir sabar léegi loolu ci batterie sabar la bokk mu doon koo xam ne boo ko fekkoon kere ko UNESCO boobu ma lay wax Njawar Touré toog tubaab yi toog français yi toog ñu baax ñi toog mu nit ku yàlla baaxal lu mu am da ko jox jaami kii di Weeseng naanu yaay joor bëj géwél Ndakaaru danay daaw danay daaw daaw da ñetti jimmi al jigéen ngoone jabaay jur ko moom mooy bëj géwél Ndakaaru fukki pénc ak ñaar li ware foofu nag mooy wóolëre wóolëre waa ak mu rafet wóolëre wóolëre lañu àndoon wóolëre moo leen yóbbu rawantewuñu sax di ay mbokk bokk li def te musunoo ñaaw musunoo ñaawoo bi nu dee it musunoo ñaawal dara ñaawul waaw maa fii dara jarul dara fi balaa nga koy xam nga dem armeer ya boo fa demee ne salaamaaleykum wallaay ñu baax ñëpp a nga yoof koo nuyu du la faale kon star baa nga yoof kum bëgg ngaañ si ngaañ si li fi nekk rek mooy baax amanta jàmm yéenanta jàmm xam na ne gis nga fa ne koo tudd ñu ne dee na maara day taali jeex na ba pare ta way wi jeex jarul ñaaw kon ñi fi nekk ñun ñi di fi nekk di euh, relève bi di génération bi ñu góor góorlu bokk ndey bokk bàyyi te muy dëggu te lu waay def rek mu dëggu ci yow il faut être sincère il faut être véridique waaw loolu moom solo jamono boo xamante ni dañuy gis tout le temps ay audio yuy fuité ci réseaux sociaux yi yàkkante bi xastante bi ku ne xaawi sa euh, sutura morom rawatina ñun jigéen ñu di ko def ndax euh, seen jamono daanaka ñoo bokk génération sax ndax euh, mais bu njëkk loolu amul woon gisuñu ko woon réseaux sociaux yi ban jàngat nga ci am na dafa mel ni euh, li muy yàq tamit bëri na lool ah, waaye am na loo xam ne nag Rose borom juddu du ko def am na loo xam ne ngor du ko def am na loo xam ne jom def ko xam nga réseaux sociaux benn sociaux faatu sociaux man yëpp laa yemale dama ne am na loo xam ne juddu defu ko lu du ci juddu feeñ ci jikko lu mënti am rek lu dul réseaux sociaux rek mooy daal kenn rafetlu wu ko as gor war naa toog waxtaan ak xaritam tubaab bu demee bi leen sit dites-moi celui que tu fréquentes je te dirai qui tu es et montre-moi ton ami je nature xarit am na solo nul ne parfait soo amee sa soxla tey yow mënoo ko mënoo ko mënoo ko mënoo ko résoudre rek foo nga gis maman Sodo Bousso mm-hmm. mu xelal la Rose mm-hmm. jaaral ni jaral ne jaaral ne. Mhm. nit day xarit day waxtaan xaritam. Mhm. sa xarit lu mu la wax nga jenc mhm. loo leen toog waxtaanee jarutu filmer jarutu def audio. koo toog am loo séq ak moom jarutu filme foo nekk tubaarkàlla foo xam ne jotaay ba rafetul jarutu filme kon tol noon jamono joo xam ne Rose man kon daam newu ma kenn waaye nañu jël baax baax yi. ñu wane ko. yu bone ñu gës ko suul. te xam ne adduna amul benn solo. te ay ñaaw ak weer nit ak weerante nit ak. weer sa morom nekk ak sa xarit yéen ñaar ngeen am loolu def nga bàyyi ba ngeen xulloo nga weer sa morom waaye loolu as góor ko waaye loolu rafetul jekkul ci gis-gis jekkul rafetul déedéet fii ku fi wéet waxtaan koo gis ak ku mu mënti doon ku fi wéet waxtaan ak sa xarit ku fi wéet waxtaan ki nga wóolu mhm. koo fi gis am na confidence intimité yàgg na ci réew mi waaw kon nañu garder les secrets di jël yu baax yi te xam ne àdduna amul solo askan dafa fort deret dafa fort être noble c'est le sang di di di am jomb jomb waaw waaye waxtaan ak léegi sa ngeen ànd fa leen ànd xulloo werante et après et après loolu jekkul macha allah defe naa ñi gore ñi ngi gore ba tey ndax su ma fàttalikoo keroog bii Euh, suñu papa euh, Bruno daal di wàccee liggéey ndeysaan. waaw Bruno man am na suñu may woowee Bruno Diatta bu jigéen. waaw témoignage yi mu am doy na waar. <laughs> lool doy na waar lool lool. waaw mais mais mais Rose. nit day jënte nit day jënti secret. Mhm. nit gis nga état. moo tax ñu ne l' état. nit day jënti secret. nit day déglu conseil. le président de la république est élu au suffrage universel. waaye nag il a il a ses conseils. Mhm. xelam rek doyu ko. nit day déglu lu koy jëriñ nit dafay déglu waaye nit day jënc secret waaw nit day jënc secret waaw te xam ne nul n'est parfait te ku fi gis diisoo yàgg na ci àdduna waxtaan diisoo sottante xalaat ñu tëj mi ngi fi ba tey nitu valeur yaa ngi fi ba tey mooy yi ma wax yooyu ngay wax ñu tiktok mi ngi fi ba tey Mama Soda damay dégg ni Mama Soda dafa mën tëgg sabar ma bëggoon xam ma fii yooyu na daan naa ko def Europe. Mhm. groupe laa yore di tëgg sensibiliser di tëgg la cigale def équipe boo xam ne tey su ma la gàddaloon ndeer ji ba taggu mbaar ba wër wër ndomb <laughs> oh waaye batterie bi nekk ci sama gannaaw. déedéet kay ah sa yaay yow tam boo wëndeelu. corona lakkal nañu na gaaw boobu nag yooyu yàgg mhm. sa yaay sax léegi. Mhm. day day taaxi lu tuuti rek. Mhm. di di tempe. Mhm. waaye am na yu bari yoo xam ne tam def naa ko Europe. wax naa sama doom gi ne incha allah dañuy toogaay beneen toogaay. Mhm. ñu génn archive yi. génn ba may yëngal. génn ba may def yëf ya. gàddu ndeer ja waaw boobu sa yaay tubaarkàlla waa yuuxu waa ñuy photo di naaw <laughs> sa yaay léegi dafa yor ànd ak <laughs> waaw <laughs> sa yaay dafa am laaj nan ma ko. temps sama lu tënk nga ma daal. man li ma yëngal daal moom ma ëpp doole man daal je bouge je ne sais pas xaw ma lan moo ma yëngal waaw mais nag sa yaay day yëngatu waaw keroog boo ko fee ak activité bi bu ma jógee jóg tubaarkàlla wala jóg pivoté tourné wër ndoom tàllal ñaari loxo yi ah tubaab bi commencé oh yuuxu waaye la ma sonn suuf ne feem laa koy def tey suñ la waxoon nga def euh, euh, résumé ci ki nga xamante ni mooy euh, suñu pape Mbaye Dieye Faye waaw kooku dafa baax kooku Sénégal xam nañ xam nañ ko sax waaye dafa am ñun ñoo xam ne dañ leen gën a xam. Mhm. kooku ko gën a oyof baax moom exemple la sax. Mhm. kii nga tudd. Mhm. ci affaire xarit. dafa ànd yuusu gëm yàlla. lu yuusu am mu yéene ku ko te ñoom ñaar ñoom ba pat. di xaritam. mës sa cenc. ñun suñu jamono boo fi ànd ak nit bu amee benn benn bijou dootoo ko xool mu baax la. ànd ak génération bi yëpp ku bëgg boo tëgee bés mu ñëw jàppale la ku bëgg soo déggee studio boo ko ñëwee mu def ak yow diwo muy nawle bu baax ñoo bokk benn maam moo ko yaay seen ñaari maam ñoo bokk ndeeg baay waaye man waxewu ma foofu le comportement comportement ak ni mu mel rek lay wax maa li bàyyi maa nga kenn gënu ko muy Babacar ku oyof waaw euh, en tout cas nit ku humble euh, suñu papa jooju ñu koy nuyu. de passage bu baax chéri maman maam Ndiaye. ak caane kon ak caane di leen nuyu de passage donc suñu émission mu ngi bëgg euh, dem à la fin xam naa temps bi mu ngi ñuy bëgg xoj kenn du doyal ci yow nag maman mais nag euh, dañuy sàkku xëy na yeneen yoon incha allah ñu amalaat yeneen jotaay yu gën a yaatu yii nii ñu bàyyi la nga joxe sa moo de la fin rek waa Rose xanaa kontaan ci toute l'équipe xam nga Dakar Buzz yéex naa ñëw waaye fexe na ba jël place loolu rek am solo bi mu ñëwee yéex na ñëw waaye bi mu ñëwee fexe na ba jël empreinte am ci média bi di ñaanal son directeur yéen di leen ñaanal di ñaanal Sénégal di kontaan ci ñëpp xam nga man li ñu ko waxee sànq rek bugguma sa di juum parce que j'ai pas droit à l'erreur man sénégalais yëpp ma bëgg sénégalais yëpp ma fonk sénégalais yëpp ma jox cër te moom pourtant je suis rien du tout danoo baax rek bëgg ma lool bëgg samay affaire di leen ci ko kontaan maa ngi soog a dugg léegi ci média bi ma defee benn émission waaye gis nga sénégalais yëpp ko rafetlu ñu ngi ko dagg ñu ñuy commentaire ci tiktok yi xaw ma man du seetaan yooyu waaye ñëpp kon maa ngi gërëm ñëpp di leen wax jërëjëf yàlla na fi jàmm yàgg yàlla musal nu ci lépp luy seytaane musal nu ci pak seytaane moo jàpp ñooñu mhm. ñooñu nga wax mhm. waaw seytaane dina ñëwee nu seytaane dina ñëwee nga nekk ak sa xarit kala tubaarkàlla ngeen waxtaan ci jàmm nga jël ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay vocal jàmbur yóbbu ko seytaane mën na ñëwee noonu mu tax yàlla na ci yàlla musal yàlla musal na ci pak amiin yow it yàlla na la yàlla dara jàll nga eggali sa sago je suis très yaa ngi koy def ba mu baax waa maa fi kontaan naa bu baax yaa ngi koy def ba mu rafet ak sa càmmiñ yi nga àndal en tout cas Dakar Buzz daal man sama yëfa mhm. man sama yëfa mhm. waaw kontaan naa ci ñoom trop mhm. waaw béeg nuyul ma directeur nag. dina ko dégg ne ko kontaan naa bu baax. Mhm. nuyul ma directeur bu baax. dina ko dégg waaw monsieur Sy. macha allah am na solo lool tubaar fakal macha allah euh, sama xaala xii na defe naa am na solo lool ni ma leen ko waxee woon rek ndaanaan la ñu seet si tey wante du n'importe quel ndaanaan ndax day référence ci dëkk bi à travers le monde entier muy représenté dignement li nga xamante ni mooy drapeau euh, Sénégal maman Soda dañ koy jaajëfal bu baax ci interview bi nga xamante ni accordel nañu ko euh, ñun waa Dakar Buzz TV pour une première fois. mu def sorti ci site internet euh, ci presse en ligne donc ñun ñoo koy delloo njukkal di leen jaajëfal bu baax yéen yi nga xamante ne ba ngeen jàppee ba tey bàyyiwu leen Olof Ndiaye dafa ne feccum liir bu neexee nday jaa jàpp si mbagg ji yéen internet yi amuñu benn yoon seen fay di jaa jëfal sama équipe nag tey nag bojo bojo yi laa àndal ah kii di Amza Jibi ak eh, xale boobu noonu nga xamante ni tey du ma wax turam nañ bàyyi noonu rek mu sedd di leen jox di daje très bientôt incha allah ci yeneen jotaay d'ici là portez-vous bien merci de nous avoir suivis.